Sylla somb Sëriñ Fàllu di ma jigéen seen di ma jigéen seen somb Sëriñ Babacar Si di baana bat yi jàppal ma jàpp di joor njaay ànd déggal sa borom kër Aji Ngom sopp sa jëkkër groupement Fat Sek jàppale Habib Niang Wëri sopp sa borom kër dina wax ne kii mertee na Ngom moom mooy sunu géwélu avec mu ñëw mosal tuuti Habib Niang ci teraanga yi koy defal Kawsara Fall Kawsara Fall Kawsara Fall Madina may dégg bu kon nag yéen liñ leen doon wax lu jiin njaaga te njaaga yi to gis njaaga ni nii maa ngi leen duy nag kenn ku nekk sa tur ak sa sant maa ngi nuyu mbooloo mépp wax nag des koy dégloo ndax lii zone nord la ñu ñëw tey zone nord dañoo ñëw zone nord te lii yaakaar naa yàgg nañ koo bëgg waaye nag tey jii la yàlla dogal yéen waa zone nord yéen waa Médina Fall yàgg ngeen a liggéey ak waaye nag yaakaar naa toogaay tey jii tey jii la ko yàlla dogal si yéen nag nit ki su ne dafay ñëw ci yow nga yàgg di liggéey moom te gisoo ko bés ñëw mu bëgg a xool la ngay liggéey nga wan ko ko da na war ne tekk te déglu da na war ne tekk déglu xool nag caaxaan amul caaxaan jeex na xam nga des mooy fulla ak fayda da ngeen di déglu nag li ma leen di wax gis nga ñëw jël dem taxul nit ñëw fi dama foog ne gor su jógee ngir liggéey ànd ki muy liggéeyal dafa war a am fulla am fayda xool ci li muy def kenn ku ne am nga reeru kenn ku ne am nga reeru kenn ku ne soq nga kenn ku ne soq nga kenn ku ne wal nga waaye nag jëmm jii nee dafa am lu mu bëgg kon li mu bëgg de tam xarit yi taxul kenn ku ne ñëw jël dem xam nga lan la soxla man nag li ma leen di wax rek man Khady Sarr ku ne xam na ma man politique bàyyi naa ko depuis 2012 bàyyi naa ko de sunu waa koñ gi xam ne bàyyi naa ko politique depuis 2012 politique tuma doxatuma waxatuma man waaye nag mbir bu taxee nga jóg la tax nga jóg dangay xam man ku ma seen xam ne man du ma nitu caaxaan tuba ku ko jëmm jii nag dafa am lu ko yàlla boole ak sama njaboot ma bëgg nag ngeen jàppale ko ci loolu man loolu moo ma tax a jóg waaye reer taxu jóg ndax ku ne am nga loo soq ku ne am nga dugub waaye nag moom neen daa am lu muy bëgg mairie Zone Nord moom la bëgg mairie Zone Nord moom ñetti yoon laa leen ko wax yéen may dégg léegi nag li leen may ngeen may ko ko moom mooy carte d'identité carte électeur ngeen bañ koo wor ngeen jàppale ko te yàlla tax su ko yàlla falee ci boppu mairie bi yaakaar ne mën naa am ne incha allahu yàlla mën naa def diggante Kawsara mën na faal taxi kaw jaxaw yàlla mën naa def de suppi ko ndax ku ne son noor nga bëgg waaye nag caaxaan baaxul xam nga li mooy wor as moomul wor man nag bu dee sama benn carte kese si kattanu yàlla nee naa leen bàyyi naa politique waaye dugaat naa ci moom mii ngir mairie zone nord sama may ko ba mu jàppaat maire bu mag ba taxaw ci suñu wet man Khady Sarr ay groupement la ma defal la ñu defal loo maa ngi ak fi mu sama ñeenti groupement yoo xam ne pare na man mu ngi nii ma dugal sama poset mu ngi nii man bëggumay caaxaan sama ñeent groupement yoo xam ne ñu ngi nii mu ngi nii mu ngi nii ak yi ak yi xëy ma pareegul waaw seen liste ngi nii ak yi pareegul ak yi pareegul ak yi pareegul jiite sa tur nga jiitu fa nga nekk ma teg la fa ëllëg boo amee leneen ma jox la ko nga bokk sa mbooloo dem moo tax ma def fii amuñu maa jël lépp téye waaye lu ñëw nag maa ko téye maa ko moom ku ne ma jox la sa groupement ku ne nga def sa tur ak sa li ngay liggéey boo ñëwee ma jox sa groupement nga def ak sa mbooloo boo liggéey looy fay nga fay looy liggéey nga liggéey luñ lay may may la ko moo tax ma def lii. jërëjëf Habib dalal ak jàmm yàlla na sëñ Touba ak Cheikh Fall jàppale ci barke Borom Touba awa dama am ñaari doom yoo xam ne may lema tuuti dama am ñaari doom yoo xam ne zone nord muy awa mu ndaw ak awa mu mag ñuy samay doom jàppantoog am ni nogoy ba tax ba nu egg ba ci sëñ Abib ñaam yi loolu ma ñoom laa leen di xam ne man maa ngi leen di gërëm ci côté boobu ndax nag fu nit jote na doole fa jot loo jël gërëm di leen ziar leen jox ku nekk seen wàccuwaay ah di nuyu sunu président monsieur Habib Niang di nuyu délégation bi ànd ak moom di nuyu ñëpp ñuy beral nuyoo bi nag waa Medina Fall ñi nga xame ne ñoo ñu teeru tey seen liggéey seen liggéey macha allah rafet na di nuyu waa Kawsara waa Caali di nuyu waa Poñeen di nuyu waa Jaxaaw ku juum di nuyu waa Ngent waa kër maam waa kër Kaw di nuyu zone bi ñëw bàyyiwuñu kenn gis nañ seen taxawaay ah gis nañ li ci Habib waaye Habib nag macha allah liggéeyam la boo xam ne ku ànd ak moom doo tàyyi doo yox yoxi ndax liggéeyam set na te li mu am mi ko yéene jigéen ñi kon nag. ànd ak Habib moo wóor ma di leen wax nag fi mu ne nii ah policiers yi jóg nañ nag ndax ñu ngi ci groupement yi ñu ngi ci avec yi waaye defe naa koo ci gis benn yoon mu sànni la cent mille sa leket bu élection passée dootoo ko gisati kii mooy lam de développement kii mooy gor moo neex a àndal ma leen di wax nag yéen sama mbokk jigéen yi na ngeen jàpp te teew bàyyi ndax jigéen defe naa bu jógee tëj këram ne mi ngi dem ci terrain politique bi da cee war a gis boppam looloo waral monsieur Habib Niane man du ma yem ci politique je fais de la du développement développement laay def ndax jigéen bu nekk gis si boppam ndax ñun jigéen ñi ñoo yore kër yi ñoo yore njaboot yi kon nag bu ñu ko toppee ñun leen gis leen am incha allah li ñu bëgg ma di leen wax nañu takkuwaat te xam ne ñu ngi dem ci élection yoo xam ne élection gox la. ndax présidentielle passé na boobu monsieur Macky Sall boo ko moomoon bii nag élection gox lañuy ñuy wax mooy local ku nekk sa bopp sa bopp la Habib Niang moo soxla zone nord bii te defe naa yéen jigéen ñii bu ngeen takkoo incha allah pour fal ko di ngeen ko fal yaakaar nañ leen ci wóolu nañ leen ci ndax defe naa gis salle bii ma gis nii gisuma fi jaam gisuma fi kuy wor xanaa dañ leen di dellu ñaaxaat rek ñaaxaat leen wax leen ne da ngeen di bàyyi dangeen di jàpp te a bàyyi ndax booy def dara mbir dem ak conviction li nga am incha allah di ko bëgg ndax defe naa ne kuy boot kuy raam di la boot ah bu doxee kenn waxatu ko kon nag dama bëgg ngeen jàppale Habib Niang mi te xam ne mairie bi bés bu ko jëlee ku ci nekk sa soxla incha allah dina faju ndax gis ngeen assainissement bi nu mu mel tali bi nu mu mel nii yoon yi baaxuñu. marché baa ngi ne ku fa dal sa table ñu yëkkati la kon lamp yi éclairage public bi baaxul amul lenn kenn koo xamee ne gis nga sa bopp ci zone nord bi kon nag ñun bu ñu bëggee li ñu li ñu bëgg am ko ñi fi nekk daleen leen yëkkati te bu ñu yëkkati leen nag ku nekk boo joxe sa kàddu def naa da ko war a respecté ndax nee naa politique moog islam ñoo ànd moog diine ñoo ànd ndax dangaa joxe sa kàddu te kàddu moom la ñuy fonkee jullit boo xasee ba ne Habib Niang mii la nga wét gore wétali ko gore boo xasee ba dem ci urne yi na nga xool sa diggante sa borom ne man kat maa joxe sama kàddu te alal ji mu def si ñun sàcc ko triandé wu ko da liggéey ñax ko semaine bi li mu liggéey fii la koy fi danaa sama jigéen laa ko jox kon nag kooku nga xamee ne alalam ji da koo lew doom mu ñëw jox leen ko pour ngeen liggéey defe naa ne kon war ñoo gën a gore dañoo war a fexe ba nga xamee ne namb carte d'identité yi ndax carte électeur mooy fal Habib Niang mii képp koo ne képp ku ne bëgg naa fal Habib Niang te amoo carte électeur mënoo koo fal kon nag nañu nàmm pièce d'identité yi am carte électeur ba nga xamee ne bu ëllëgee ñu mën koo fal te bu ma duggee ci urne yi dama naan Habib laa joxoon sama kàddu kon nag Habib laay sànni carte bu ñu defee noonu incha allah ndax booloo mii fi nekk kese bu fekkee am na sincérité am na conviction incha allah Habib bu tëddee de nelaw xaw ma nag mbooloo mi nga xamee ne dañu naan Habib yaa fi nekk te bu ñu wéetee def leneen ma leen di ñaan ñun ñi nen woon Habib ne ñun ay jullit lañu ay gor lañu te suñu kàddu ciment lañu benn yoon lañu tooy benn yoon lañu tooy kon nag nañ ko woon Habib ba nga xamee ne incha allah mairie zone nord bi dina ko jël ci jàmm ak salaam ndax Habib kat. tànqam li wuñ kenn bëgg démb lañ ñëw fii Medina Fall ci groupement bu ñuy benn groupement ci gannaaw sorewul dara bii ñëwee ñu jox seen mébét ne ñu amuñu ndox ca suba sa la Habib woo camion ndox mu ñëw indi leen ndox di ko def un peu partout nag fépp ndox am Habib mu ngi fa yóbbu ndox nee naa leen bu dee éclairage public yi nu ci dara parce que loolu rôle maire la maire la ndax poto yi Habib mënul xëcc ay poto ba mu ñeex si ci gox loolu rôle maire la bés bi ngeen ko falee incha allah defe naa dëkk bi fépp dina leer ndax mbiri assainissement ci liggéeyam la bokk tali yi di taar buntu kër yi di taar ngir yàlla nañ jël ñi nga xamee ñoo fi nekk ñoo ko ñoo leen fi mën a jëlee nañ leen fi jëlee teg fi kii nga xamee ne moo di gor ndax defe naa ne umpale wu leen ne ah projet yi mu am pour jigéen ñi bare na barke démb la joxe 10 million de francs ne pour sama jigéen ñi sans intérêt ñu commencé ko leble ci jigéen ñi ku ci nekk incha allah sa waay dina ñëw ki nga xamee mi ngi la joxe 10 000 francs ak yeneen projet yoo xamee ni incha allah dina ñëw kon na damaa bëgg ñu jàpp te teewu bàyyi bu ñu kenn nax ndax ñi jóg léegi bari nañu waaye ñi nga xamee ñooy liggéey ak ki nga xamee ni boo ko boo fëggee buntam mu dijil la boo ko woowee téléphone mu jël. jafe na ak ki nga xamee ne bu la sànnee cent mille francs dootu ko gisati kon nag ma bëgg ñun nañu yeewu te xam fi suñ dëriñ nekk nañu jàppale Habib Niang mii mu jël mairie bi jigéen ñi nag ah yaa am naa ci yaakaar ci yéen ndax fépp fu ñu dem dañu naan jàpp naa Habib taw ko bàyyi groupement yi fi nekk amul benn presque ñi fi seeteegul barewul waaye fépp fu ñu jaar dañu naan jàpp naa Habib te duma ko bàyyi ma bëgg kàddu googu nañ ko sàmm dañu ko sàmm ba dugg ci urne yi li ñuy am ñu bëgg ko ñu def ko liggéey bi nag mi ngi continuer ndax xamaguñ kañ la élection yi waaye ñun ñu ci teree bi chaque jour bu walee duñu tàyyi seen soxla mooy suñu soxla seen mébét mooy suñu mébét ñu ngi leen ñaaxaat leen wax daal ku ci amul carte d'identité na dem jéem ma am carte d'identité wala mu jege ñu ci siège ba ñu jàppale ko mu am carte ñi nga xam ne dañu am problème électeur aussi ñu déposé a génn ku ci am problème nga jege siège bi incha allah ñu jàpp ci ndax loolu mooy suñu gànnaay maa ngi sant ñëpp di gërëm ñëpp.